yàlla rekk a fi yàlla rekk rekk rekk a fine kenn nekku fi du yaa ngi màgg màgget bi jaaw weex furu lu la def lool te dangaa ñuuloon war ngaa xam ne léegi nga dee ñu suuli la del wax lu leer del wax lu leer li leer mooy góor jigéen nañ ko jàpp rey ko buñ ko reyee nañ ko sang nañ ko sang nañ woo ko ko jullee ko mel ni man ci ñàkk dara ya suñ ko jullee suuli ko jeex na fuñ ko yóbbu moo xam jullit bu mooy yàlla la dañ koy jullee jullit bu mooy yàlla la waaye li tax ma wàcc li tax ñu daanoo euh, affaire góor jigéen bi ma wéyal ak looloo ko def mais ngeen ne ko waaw gannaaw yow xam nga ni góor jigéen baaxul xam nga ne yàlla tere na ko mais niñ ko arrêté ci réew mi moo tax moo gën président nga di ko wéel ñu xam ne ñii ay vrai élimaan lañ ñu xam ne ay vrai élimaan lañ waaye naan ko woy moom kay fa ngay moom kay nangam moom kay luy loolu ndax lii lii lii xaalis bi tax lii de seet ko lii lii de lañ leen dóor ñu bëgg a ànd ci li bëgg a bàyyi li xaraam mais du fe du dem du dem ñoom ñëpp a yem diine ji ku ci dugal sa loxo danaa ko ne përëj dam sama yoon nekku ci taarix sama yoon nekku ci taarix taarix am nay carte mii diine ji diine yàlla ji ak diinu lii wahdi maliki yow mi diini lakkum diinu ko waliye diini muy borom duma seetaan kenn di ci dugal lu ci bokkul lu leen neex wax leen fu leen neex dëkkal leen ma fu leen neex waaye du dem de du dem bi ci des nag bu Macky wax lool na wax ne rek yàlla mi doon moo mi doon maye moo nangu yàlla ñëw nangu nguur gi maire yi ñeneen yor ko moom daal ilimaan yeeg ustaas yeeg boroom xam-xam yeeg boroom alal yeeg ñépp a yem maa la wax ne lu yàlla àndul loola du sotti yaa marcharal jinni wal insi in istataatum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ardi fan fanfuzu fanfuzu laa tanfuzuun illaa bi sultaani su adduna bi yépp àndoon nañu fal diw su bés ba jotee danañ xam ni ah, duñ ko fal danañ fal keneen ci ci ci ñàkk tey yàllaay yor lépp yàllaay yur nguur yàllaay maye yàllaay fale yàllaay folli buñ ci génne yàlla na ko ci dugal niñ ci dugal yàlla moo leen folli am na ñu ca des moo leen fa bàyyi am nañu fa jóge moo leen fi jële yàlla la du kenn yàlla la yàlla la xam nga ni nu tudd euh, waaye kii boobu nu tudd waay euh, yeewi askan wi ak wàllu senegaal ak yeneen ak yeneen ak gëm sa bopp walla seetal li li yeewi Sénégal am mosuñoo xalaat ne danañ ko am waxuma dara waaye Casamance ak Sénégal ak Sénégal lay wax de ak Casamance wala boog ma ne Cas ma ne Sénégal rek Casamance Sonko fa ne Sonko fa ne Dakar bi ku fi ne Barthélemy fi ne ak ak ak Khalifa. ci mënul fexe fexe fexe ba jël Dakar loolu bindu yàlla la daf lay jox lii xañ la lii nga sante ko lim la jox waaye bul bañ a gis lim la jox ndax la mu la la mu la xañ nga di ko xëcc loolu loolu du dem